pour vous dire que aussi après je vais donner la version française concernant cette vidéo comme ni ma la ci description bi rek li tur turu yàlla la ci biir turu yàlla yi di arrahman bokk ci asmaal husna yi waaye turu yi nga xamante nii ci tur yi ma gama yi di allah di rahman rahim kon rahman mi bokku na ci turu yalla yi gëna mag màgg kon boo ko bëggee firi da nga naan moy borom xewul xewul yu mag yi waaw mooy xéewalam yi nga xam ne ki ko gëm ak ki ko fees del yërmande la ba mel ne rek day mel ne clémence gi nga xam ne yàlla am na ko jëmee ci mboolem lim bind boo ko doon joxe exemple danga nga naan comme waajur yaay cofeel gi mu am ci doomam rek gu ko raw moom la yàlla am jëmee ci mboolem li nga xamante ni bind na ko waaw ca ndakana nga xamante ni noonu la mbugalam gën a tare te gën a mettee bépp mbugal waaw nak nag dem da jitu meram kon bokku na ci turu yalla yi nga xamne ne rek mom lañ koy momalel waye keneen ku dul yàlla ko am di rahman kon lu way am amam yërmande bañu tuddu tudd yërmandeem rek mun munu ci adab rahman kon ci ay bien képp kep ko ne ba nga julle fajar ba pare def nga turu rahman di 100 fois boko defé 100 fois yalla dana la jox xel mu yaatu bu dee da nga dan gaaw fàtte yalla dana la jox xel mu neex la donc voilà cher frère musulman, voilà un nom d'Allah parmi les noms qui est Rahman qui veut dire le tout miséricordieux euh, pour le décrire on peut dire que c'est le clément envers ses créatures c'est-à-dire c'est la clémence par exemple d'une mère envers son enfant et une partie intime de son image clémence envers ses créatures par ailleurs son sentiment est le plus dur et sévère de tous les châtiments mais sa clémence a précédé sa colère. Donc ce nom fait partie des noms que l'on attribue à nul autre Allah Voilà quelques méfaits. Donc celui ou celle qui dira ce nom 100 fois après chaque prière de Fajr, après la, après la prière de al Allah lui donnera, Inch'Allah, une, bonne, une bonne mémoire et le débarrassera de toute peine. Veuillez ne pas oublier d'abonner et d'aimer les vidéos. Merci beaucoup, chers frères.